normal na ngeen tëgg normal na ngeen fecc normal na ngeen woy waaye man sañu ma ko bërki démb gis naa ko doon lancé parrainage am di fecc man nag du ma fecc xam nga lu tax du ma fecc samay ñooñ dañoo nekk ca tax mënuma fecc xam nga lu ma tax du ma fecc laa doon jooy sama doom fii ci njaareem ñu rey ko ndax daf doon laaj bourse moo tax mënaguma fecc xam ngeen lu tax duma fecc paj mi nga xam ne moom laa bëgg sama ñooñ am ko amuñu ko moo tax duma fecc bourse yi nga xam ne moom la étudiants yi war a yor amuñu ko moo tax duma fecc ni njàng mi war a mel te loolu bokk na ci li tax ma bëgg a jël réew mi li manqué dafa bari duggoon naa ci département bi bareewul yoree yéen jeunes yi di ngeen xam ne dina wuute parce que ay ndey lañu dañ di ay ndey benn ndey bëggul gis yeewu gis doomam bi yeewu ci kër gi ak moom te génnul liggéeyi pourtant du seen fot du fotu ndey te doom bu liggéeyu ni ndey ma liggéeyul ndey lu mu mën lu dul jur sa doom boole ndax ak neexal raxas ba mu set dugal ci école su école bi melul na mu war a mel est-ce que ndey ji moo am faute bi ndey ji deful dara loolu moo tax ñu xalaat ni bu jigéen ñëwee yërmande googu mu am ci xale yi dina tax ba xale yi duñu taxawaal bu ndey ñëwee yërmande gi mu am ci borom kër gi dina tax ba borom kër gi ni muy jaay dootul cher dina tax ba dina defar dépense bi parce que ñun ñooy dem marché te dara doyul loolu métti woowu nag. Sénégal nekk ko te ki ñu yaakaaroon ni mën na koo faj faju ko ñu bëgg ko fee jëlee toog wut place am damaa jëlale bawal gi nga xam ne dafa manqué lu bëri te loolu président de la république rek moo ko mën te ni ko bawal manqué boo demee Saalum noonu la manqué boo demee Ñaane noonu la manqué boo demee Kajoor noonu la manqué boo demee Waalo noonu la manqué boo demee Fuuta noonu la manqué dama ne leen ñu ko seet ñun de fi ñu jaar lépp réussir na ci bañ ko waree bañ ko waree mën bañ ko waree def def nañ bañ ko waree jàng jàng nañ te ba léegi wéeraguñu sunu àll yàlla dogal na itam yéen ñi ma jur mën ngeen a seede ndax yéen a ma a defar yeen a bërki dafa am benn jigéen boo xam ni sonkàdd la dëkk xaw ma ñëw na wala déet aw géey Marème Gueye Marème Gueye def ni ma ay dëkk gisantewu ma woon ak yow waaye man de ba ma déggee nekk nga candidat damaa sol sama daal dem Ndiassane kama fa am faat seen la tudd ma ni ko na takku ci candidature ay dëmb bi nee na dem Ndakaaru cité bi sama kama fay sëyal ma dem parce que joxe naa fa kuy sëy ñu takku nekkal la fa ma dem Touba ca sama njaboot ni leen ñu takku nekkal la wax na dëgg candidat boo ko amee da nga koy jaay yéen ñii yéenay may jaay moo tax ñu lancé parrainage bi fii te defe naa bu ngeen may jaay def defe naa du ma lam ndax def naa juróomi yoon na tour du Sénégal xam naa Sénégal yëpp xam naa métti Sénégal yëpp yërmande ci ci war itam am naa te Sénégal fii mu toll. li tax ma ne bu ñu réussir parrainage bi ba ma jàkkaarloog Macky Sall benn voyage laa koy def yéen def jox leen ma parrainage bi rek li ñu def maa ko des amul galgal amul bott coup de kaw du muy dégg moom laa koy xam nga lu tax ñoom ñaar kan moo ci gën a bàyyi xel sa nawle ñoom ñaar kan moo ci gën a ñeme ñoom ñaar kan ci jàpp ni yéenewul nit ñi kaso ñoom ñaar dañ naan ñoom ñaar kan moo ci gën a mën a séddale dañ naan ñoom ñaar kan moo ci gën a mën a yërëm gone yi dañ naan ñoom ñaar kan lañ ci gën a mën a uuf gone yi dañ naan ñoom ñaar dëgg handicapé yi dinañ ma seede ndax ñoom ñooy su boobaa nag su boobaa nag ñu seede tamit ni ba mu yoree réew mi ba léegi réew mi doxul ndaxte moom jaar na ci ñun la ñu tolloo loon jaar na ci mais la tolloo loon moo gën a neex lii mu nekk parce que réew mi neexul. réew mi sonn nañ tey soo demee Dakar lu ñu taale lu ñu taale ay sax amul ndox amul nit ñaa ngi rag ndox te loolu ñàkk ndox moo xam ni mësta am ci réew jigéen te dafa am wax naa leen ko nee naa leen Bambey bi ma nekkee maire ku fi ñëw soppeeku gis mu soppeeku du jaageenu alali Bambey ko soppeeku alali maire bi amul xaalis waaye jigéen te dafa am kon nag jàpp nañ ni nit ñi yeewu nañ jàpp nañ ni yërmande bi ñu soxla tey ci Sénégal pour Sénégal mën a dëkk ci jàmm jàpp nañ ni lu metti di nga xam ne ñu ngi koy teg nit ñi di ko teg ñi politique di leen tëj kaso di leen tëj démb di nga xam ne maa ngi doon wax am na ñu ma dégg ci RFM may wax ma di ko wax ci mbiri Khalifa Sall du dëgg du yoon booy taj tajaxal nit di sañaxal nit di sañaxal nit ba mu yàgg boo déggee ma ne nawlante dafa am di nga seet li kii ci réew mi nu dëkk te nawle la te itam nag lu nekk danga koy natt ci sa bopp ndax moom su dul woon maire sax war na xam ne kuy maire ci am réew nit ñi la tànn kon su fekkee nit ñi dañoo tàng ba pare nga ne sama décret moo ëpp doole ni ko foqet nangu par décret te waaye nag ku bàyyiwul benn jigéen boo xam ne góorgóorlu na ba daaneel ñaari ministre en fonction nga ni fokket nangu conseil départemental nga xam ni su ma doon delloo ay loxo ba léegi kon conseil banque ci yeneen loxo ndax da koo nangu ba pare wëlbati ku andi xaalis ci réew mi pour ñu jënd conseil yi waaye ñii ay gor lañu ay gor la am chance bi ma am nag Khalifa Sall am mu jël nag tëj ko ba pare jël décret nangu maire waaye waaye waaye am na ci loo xam ne sunu borom tekkam du noppeem sunu borom tekkam du noppeem am na lool Sénégal bi nañ ko dindi mais am na lool suñu borom defe naa du ko seetaan kon nag ñun mën nañoo wokk sunu jëf te ñaan yàlla boo gisee Aarona bi muy génn léegi ma ne ko dugg si waatam aman Bambey laa dëkk am na ñoo xam ne lu ñu bëgg suñu borom fekk leen